est-ce nga foog na dafa war a dellu parti socialiste xeexaat wala mu créer fu boppam militant yi gëm ko yi ko gëm ànd ak moom. bu dee ci plan politique conseiller wu ma ko mu dellu parti socialiste ne PS tey am na ñoo xam ne xalifa dellu fa dee moo ko gënal parce que xalifa ci ni ma ko yaakaaree mënul dellu ba bokk bennoo bokk yaakaar te ñee diriger PS tey ay ñoom ñoo gën a sax bennoo bokk yaakaaree waa APR kon. dellu moo nga ne ñi diriger PS. ñoo gën a APR sax APR bu pour wax ji gën a leer. ñoom lu neex Macky la moo leen neex lu neexul Macky duñ ko def boo xam ngeen tanoor loolu leen bàyyeel kon xalifa delloo foofu du am xalifa li mu mën na def comme man nekk socialiste ci xolam mais comme que élection coalition moo koy gagné mu plateforme bu yaatoo yaatu ñi bëgg a moom ànd ak moom te mu xeex li ma koy digal nag noppem daa ëpp na ñëw taxaw problème askan bi mu wax ci xeexandoo ak ñoom dugg ci marché yi loolu mooy gañaloo nit de waaw. mais ba tey ji may wax ak yow moom laa yaakaar ni ëllëg war na mën a bokk ci ñu yor réew mi am naa ci yaakaar mais nag yaakaar am naa ko ci mais ku mel ni man bu la toppee ba xamul lu kii day taxaw li ma koy wax mooy na ñëw xeex man pro askan wi bu amee problème pour man policier dañoo war a génn loolu la ñuy doy doyewuñu leen jiite julli doyewuñu leen ay jàng li leen doy mooy askan bi seen coono ak li ñu bëgg ndax ëllëg askan bi leen di fal. moo tax ku mel ni Ousmane Sonko des fois dama koy rendre hommage Guy Marius Sagna dama koy rendre hommage. yooyu daan na am yaa naa maar ak ñeneen kon Macky Sall jamono ji muy nekk opposant su may déglu léeg-léeg nga teg yi Macky Sall doon wax pour man yooyu bu ko déggee sax dafa war a fan Guy Marius man su ma doon place Macky Sall ordre national de l'union day jékki rek moo Guy Marius Sagna dóor ko ko ne ko yow ku bëgg peuple bi nga mais yooyu day neexal Sénégal yooyu xoolal da nga koy banaliser rek ba mu dee mais bu dee lu jóg comme tey sa li may dégg ñu naan dañu lay yóbbu tribunal bis bu ñu ko defee dee lu tax. gis nga bis bu ñu ko defee booba léegi ñu ngi bëgg ubbi procès bi ñu naan OFNAC jox na ko jox na ko procureur nangul woote mais bis bu ñu ko ubbee dootul procès Pape Alé procès li Pape bind lay doon bu ñu koy def di dee ay bu ñu ko jéemee bu ñu ko jéemee di ubbi sax yeneen bunt ki leen xelal loolu amul xel de parce que boo yeggee yow Pape ngeen est damaa fen est-ce que facture nangam laaj leen ko ko baal ma indi facture nangam baal ma indi preuve nangam ubbi nga procès am na ci yoo xam ne gëmmaale ko te sàngu ci tëdd ko gën. ba bàyyil bul yàq stratégie bi waaye bàyyil <laughs> bul yàq stratégie bi stratégie bu ko yàq waaw bàyyil loolu waaye. ah mais tamit xam nga jàpp Khalifa Sall ci un milliard huit cent. waaw yu bari dox ci diggante bi nag ñu gëm ak damay laaj est-ce que du même procureur samedi ak dimanche bi moo fi ne ba léegi. est-ce que du même procureur bi ñu jàpp jàpp keneen xanaa néew fi xam nga procureur la boo xam ne ci gars yi opposants yi rek la ay. loolu bon gouvernance loo ci xalaat yow fi mu léegi lii. bonne gouvernance su fan. <laughs> bu Macky Sall. yàlla nañu yàlla dimbal te yërëm ñu. <laughs> Baba Baba dañuy émission waaye yàlla nañu yàlla dimbal te yërëm ñu Pape Alé xam nga li am ci réew mi moom ku ma am ndey ku ma amul ndey la rek. parce que tey tongal Karim tongal Khalifa Sall tongal ku ne fii ku bokkul ak yow parti du am jàmm su procès Barthélemy bu dul jeex. Mhm. comment nga te lu ne ñu gis ko sa parti te ñemewoo ci wax.

essayage sax avril du ko <laughs> wóorul mu am essayage avril xanaa ñëpp kay dañoo yëpp ambassadeur u France bi rek. non mais quand dina baax pour élection xam nga pour élection présidentielle bi ñëw buñ ci góorgóorlu téye ko ba ci kanam dinañ am lu ñuy nuyu rek. Ah, kon kon Macky day wut troisième mandat nga foog. Macky dina ko wut. dina wut troisième mandat. tey su amoon premier ministre ma gis dauphin am ma gëm ni du ko wut tey Macky problème am mooy li mu nëpp nëppal tegoon ci kuddam boobu. Mm-hmm. demagul prescription prescription dix ans la te bu dee affaire financière dama nëpp dix ans comme que du mat ans nag sept ans lay toll kon foog mu ñu couvrir ñooñu foog mu nekkaat candidat jëm ko gagné tey nag bu fekkoon ni teg koo xam ne parce que foofu la waroon toll. ni kon Macky day wut troisième mandat. Macky dina ko wut parce que am na benn xaritam bu may waxtaanal. Mhm. mu ne ma non Macky boobu du troisième mandat am deuxième mandat deuxième mandat ma troisième candidature deuxième mandat na la ma ko waxee reetaan na nee na ma troisième candidature deuxième mandat. am na ku ma ko waxoon leba leba leba leba est-ce que booy poser question Macky Sall la ko est-ce que tu de faire ton premier mandat de de du quinquennat ou bien ton dernier mandat. mais mais mais kaay ma xamal la de. <laughs> Macky mais nag kaay ma xamal leen de. Mhm. texte yi leerul de nañ ko nangu. Barthélemy doon na ko wax ñu naan waxi dof lay wax Macky Sall bu bëggee troisième mandat bu ko neexee ni deuxième quinquennat am la texte bi leerul ñu ko bind ñoo ko tey ñi bind texte bi xam nañu li ñu bind leerul parce que dafa ni kenn mënatul am plus de deux mandats ba bindaa suuf ni mandat bi quinquennat yi affaire quinquennat la ko tuddee donc Macky Sall bu ko neexee ni bii mooy premier quinquennat ni ko Wade waxee woon deuxième quinquennat am la jëm wax jee bari kese mais au lieu nga fi nekk naa ko doo def troisième mandat mais na def ni Macky Sall def ba gañe Wade na ku nekk dajale say mbooloo même bu nekkee candidat nga gañe ko. bu manifestation amee gars yi génn ci mbedd mi. dama ni la Macky nekkal candidat ba mu neex la parce que opposition bi dañoo li ñu bëgg dafa yomb yow bëggoo xeexal li ma gën a bañ mooy ñoo xeex di jël ay sa kooku di ko yebal am nañu micro yi boo bañee Macky am troisième mandat na opposant yépp nangoo génn ci mbedd mi. nga bàyyi léegi dem nañu ba opposition amatul léegi société civile ñoom Guy Marius Sagna ñooy opposition. ñoo lànk parti politique yi ba pare bëgg ñu sonal te ñoom ñooy faluwaat man a gis nga kaay wax la man d'accord ma ay troisième mandat mais nii mu demee nii bu ñu bëggee nañu génne xeex ko yeneen dëkk yi boo dem gis nga Guinée. dem nga fa mhm. daf leen a jaral ñu fees jëlee mbedd mi xonq cur. Mhm. mais fii amee salon yi amee avion yi amee hôtel yu neex yi ba pare bëgg a jël doomu jàmm yi teg leen ci mbedd mi loolu mooy ndeyu lan boo bëggee àkkara dangay ngay ñemee kaani bu ñu bañee Macky defaat mandat nañu taxaw xeex ak moom mais ku nekk fii yaa am relation via quelqu'un ci Macky à part quelques exceptions près nangu wax xeex ay chef de ñu ne ay milliards la ñëpp noppi ah fii lépp la ñu noppi du yoon du dëgg du yoon ba pare léegi ñun ñi xeexal la Macky Sall bu ko neexee ni troisième candidature xaw ma nag lu mu ko waxee baax na mais nit ñi bu ñu ko bañee assemblée nationale lu fa dem jàll conseil constitutionnel lu fa dem jàll la avis conseil constitutionnel décision lay doon après mais tey fu la ji mooy lan nañu taxaw jàkkaarloog loolu mais tey kenn du ci wax tey doo ci dégg Khalifa doo ci dégg Idrissa doo ci dégg kenn mais nañu wax. Hmm. ni loolu du fi am ne ko suñu bakkan ngay jaar moom mu dégg ko mais ñemewuñ ko wax beneen bi nga wone loo xam ni da ngay wan Macky Sall même boo ko jéemee fi wàdd mujj ngay mujj doo sax am 20 pour cent mais lii ma gis ñuy def chaque jour ñu rocci seen i nii renforcer Macky ña nekkoon ak Wade ñëw ci Macky ñu nekkoon ci suñu parti dellu fële suñu parti yu ñëkkee gën a kii Macky lu tere jàll Macky Sall la dañ koo liggéey moom da koy liggéey Macky Sall dafa ni tekk te di ko liggéey te ñoom dañoo liggéeyal wax lañ fi dëkkee opposant du mais benn opposant ñi meew fi lacrymogène même personne yi ngay gis Decroix rek nga fi gis ak ñaar ñett du yoon Barthélemy mooy ñëw Khalifa du ñëw Idrissa du ñëw Déthié Fall lay ñëw keneen du ñëw léeg-léeg Sonko du ñëw loolu ñeneen ñi kenn ki nee na bàyyi na politique muy Madické Niang sëñ bee ko wax comment nga keneen euh, nu mu tudd Sall patron ba nee na ko léegi. Euh, yabalatu ko mais quand même oh, fan lañ jëm. dara boo ko bëggee nag da nga koy taxaw jëfe ko et puis euh, dialogue politique bi farce bi gën a mag ci àdduna ci siècle mooy dialogue bi dialogue bi moo nar a renvoyé sax législative bi ñëw ndax dialogue bi xaajagul pare te dialogue bi décision bu ñu bëgg a jël dinañ ko jël avant dialogue bi jeex. bi ñu renvoyé élection bi est-ce que xaar nañu conclusion dialogue bi. luñ ci def leneen bi ñuy def bi ñuy def sondage cest à ñu ngi yëngal ballon de sonde pour élection affaire Dakar bi ba pare créer quelque ñu bokk ci ñoom pour ñu ni déet pour ñu ne am na démocratie yëpp yëpp comédie la mise en scène la mais bëgg nañ ko nag dañuy xool ndax dina c'est faisable mais pourquoi bàyyiwuñu dialogue bi joxe conclusion bi ñu ñu seetli dialogue bi wax ñu jéem ko appliquer ni dialogue bee ko wax très bien. Bamba maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax amoon nañ mbégte dalal la. kàddu gu mujj lan lay doon. kàddu gu mujj gi mooy nañu wàññi politique bi yërëm askan bi Macky Sall dëkk bi dafa metti liggéey yokkuwul te am-am bu yokkuwul vraiment kon denrée yi ngay yokk warul mën a ne parce que tey. ku daan fayee ko cent mille deux cent mille am problème mu fay lu yaas daan taaba taaba di taf yëngal pour fay courant ndox tey boo yokkul salaire am ba pare yokk charge yi mu yor day métti ci moom. Mhm. donc président wàccil wàññil dépense yi ngeen yor yu présidence yi. yu assemblée nationale yu haut conseil institution yooyu tekkiwul dara dindi leen nga delloo ko ci askan bi. Mhm. ñu bàyyi politiser institution d'état yi moyen d'état yi ñu bàyyi di ko politiser bàyyi kumba am ndey kumba amul ndey. bu ko defee administration territoriale bi tamit xam ne ñëpp lañu fi nekkal ak police beeg yooyu ba ñu nekk ay militant benn parti politique Macky na ñëpp nangu ni tey yow la fi yàlla teg mais bootal ñëpp pour boot sa waa kër kese li nga dóoree woon kële bu ko sawaa waa defee dóore ko ko li nga taggee woon kële bu ko sa waa kër defee taggee ko ko mais bu ñu sa kumba am ndey kumba amul ndey bi moo mujj a metti sa waa parti lu leen neex la ñuy wax am na sa waa parti bu ne drogue bi autorités yi ñoo ko fi dugal kenn entendre ko ba tey te tey lu fi nit wax ñu entendre ko tëj leen kon loolu moo dul yoon procureur il faut mu nekk procureur de la république bañ a nekk procureur APR loolu mooy dëgg. leen sant di leen gërëm di leen dig dajee bi di ñëw si beneen émission face à Pape Alé seen chaîne de télévision la Sen TV jërë ngeen jëf